rentabiliser l'événement, il faut trouver d'autres moyens d'autres ressources qui permettent permettre à la structure d'organiser, organiser rentabiliser l'événement. comme j'ai l'habitude de dire je demande un bilan financier en public. Euh, am na loo xamante ne tey structure jàmbaar ñi ngi ci entre nous dinañ ci waxtaan loolu póotum biir néeg la li ma mën a wax daal mooy làmb ji am na ci jàmm jàll na ci jàmm ñaari mbëri bëri nañ ko ci jom ak fulla ngor aussi li ci am am na ci bon même si li gars yi di wax c'est une victoire à la Pyrrhus et autres mais dañuy xam ne rek sport la la dëgër c'est un très grand champion nga xamante ne tey làmb ji moo ci gën a néew ay défaite ak lu ko nit mën a waxal champion la la dëgër doo toog fenn dégg ne champion Siteu aussi dafa ñëw ci làmb ji ñëpp ne ko Lac de moo la mën mu ñëw wane jom Siteu dafa wane ni keroog ci ténor yi la bokk dañu waxante dëgg te yàlla tax dafa wane ni ci ténor yi la bokk wane na ni am na place am foofu donc mi ngi foofu wane na ko de part sa prestation wane na ko bëreeg champion bu mel ni Lac de mu joxe combat bu mu joxe di wax ni rek les amateurs sont restés sur leur fin moo tax tey satisfaction globale mënuñu ko am mais di wax ne làmb la yàlla moo dogal làmb ji demee noonu ba prochaine fois Eh, e bon di wax ni rek eh, ci côté boobu noonu euh, certes Franc champion la dafa def douze sorties am douze victoire li may wax chaque jour Franc am na côté bu mu doon dëkk mu ngi bëri ci kaw a kaw mais yàlla moo dogal mi ngi ci antichambre bi ba tey donc am na ñoo xamante ne ñoo war a bëreeg moom am ñoo xamantene tay war nañ ko mëna may chance mais lamb la man nekuma ci affaireu ay par parlo li logique lay wax keroog lañ ñu ci ay question ma am lu ma ci tonto parce que aussi par respect pour certains lutteurs bugguma tay di ci avancer wu mais di wax na c'est un très grand champion ay moromam yi ngi ci lamb ji ku mu pare pour bëreel incha allahu rabbi lamb yi amateur ku mu bëgg dinañ organiser franc ak ak adversaire boobu. ndax da nga taxaw ñu waaw Fadel euh, alhamdulilah ñu nekk lu ñu fi pour benn mbër kese ah dañ fi ñëw di liggéey mbër bu ñu boole rek ñu bëree ak moom waaw mais li ñu gënal li ñu gënal nag moom mooy royal fu ne nii parce que loolu moom ñu des ci làmp fu nii bëri nañoo suñu morom bëri ak suñuy mag bëri ak suñuy rakk. kon royal moo ñu desee mais nag làmb moom dafa nekk li nga xamante ne tey des fois da ngay bëgg lii far yàlla dogal doo am loolu yaa ngi dégg kon donc làmb moom bu ñu ci mënta am rek dañuy jël mais royal moo ñu dàq lépp

moy confirmer waat sama digënté man ak mané ne lu ma ci wax nga jégal ma lool après na ci wax lenen question bo mënu ma ci wax parce que du du lu ma wax pour le moment pour le moment li ma wax moy ci li muy di féliciter Mansour di féliciter Guerre waaw ci manam en tant que mbeur quoi waaw nit la bo xamantene luñ sekkoon luñ sékk jeex na oké di lañ ñaanal jamm waaw di wax né man question yi nga xamantene tay si fi ma tok ni ci lo la gëna a mun a wu wax si mais li nga xamantene moy combat bo xamantene wala sita, kan laa war a bëreel non loolu ngeen di dem ngeen laaj ko Max mbargan wa parce que mom rek laay deglu quoi. wa wa c'est ça man dafa am lu bu laaj rek par rapport ak xam nga combat bi parce que lamb saa yu rek nekk dina am noo koy jàngate dañ doon wax ne Siteu ko mu ténor yi amna ñu bëri yu doon wax loolu parce que xay na sa maas la ak yu mel ni kii noonu mais gis nañ ne bëre nga ñaari ténor wala sax mën nañ ko tuddee ndax Zarko du mbër mu ndaw Papa Sow tamit ñu ngi koy jaar bu baax a baax léegi nekkatul mbër mais ku ne xam ne nekkul mbër mu ndaw Lac de Guiers 2 mi waxi noppi Lac de Guiers 2 da la gagné par avertissement Siteu bi muy dégg loolu ndax loolu moo ko poussé woon mu liggéey à ce que bu ñëwee ci bés boobu lu mënti xew même bu ñu koy gagné tamit des ko jàpp daane ko ci wal bi gàll waaw côté boobu li ma ciy wax mooy doole doole bëre. doole moo ci gën tuuti. doole waaw. Ah. waaw. lu tax loolu. parce que xam-xam moo si njëkk technique. technique waaw. technique moo njëkk te tey loolu wone naa ko eh, man sa baaraam sa benn baaraam bu mag sa bu ma ko jàppee damay bëre pour man dama la si daan waaw parce que loolu mooy technique après puissance yi soog ñëw puissance nag loolu yax la nit ki mun na ko am mun na ko bañ a am. mais ñi ngay jëflante boo ko amee boo ko amul ñoom xam nañ waaw man fi ma yegg si caaxaan indiwuma fii waaw te Lac de pour pour l'instant dama koy joxaat li nga xamante ne moom la moomoon ci man muy mag muy nit boo xamante ne d'ailleurs bu muy bu muy imposé loolu la ko am mais làmb moo nit mel làmb moo nekk loo xam ne xëy na boo leen xasee ba signé rek waaw yaram bi day tàng xam lu ma la gëm-gëm bi day gën a lii mais man sama gëm-gëm ak sama vision mooy man amul mbër bi bëri si arène bi koo xamante ni yow góomal dama lay daan <laughs> voilà gëm-gëm boobu moo nekk ci man moom laa doxalee ba tey te keroog loolu laa wone te combat bi gis ngeen li gis ngeen li ci xew waaw li ci xew ñëpp gis nañ ko ñun lépp lu ñu war a def def nañ ko man def naa ko boog man loolu laa waaw li ma waxoon def naa ko bëri naa xeex naa waa mais tey victoire bi ni mu amee du question nag dama saltel victoire jàmbur mais man ba léegi man gëwuma dama daanu gëwuma ko waaw parce que lu tax gëwuma ko mooy avertissement bi ñu ma jox ma am ko te ma méritoo ko man dama gis ne avertissement boobu c'est la même chose la am man fi ma doon séntu mooy dañuy dem prolongation ok man sama puissance nag waaw man foofu laa ko commencé imposer. da ngaa nangul defet bi quoi. non du question defet mu amu fii defet amu fii da nga naan lenn moo am mooy arbitre moo jël victoire jox ko Lac waaw loolu seen CNG nangu na ko mais man laa wax man nanguwuma damay daan parce que bu ma ko nanguwoon tëdd naa bu yàgg waaw dama bañ ba tey waaw. am